ngëm la mbirum imaan la mbirum dogme la du ay xalaat du ay pensée du idéologie waaye lu la yàlla sant la nga war ko gëm gëm ko sans hésitation gëm ko sans doute gëm ko sans arrière pensée gëm ko gëm boo xam ne bu ànd ak certitude la bu leer naññ buy wane ne lii moom nga gëm moom nga fas sa diggante ak yàlla moom ngay jaamoo yàlla ci sa xol moom nga gëm mooy wa nu'minu kon dañuy gëm bi malaikatillah gis nga malaayika yi daf koo moomale yàlla bi malaikatillahi ci malaayika yàlla yi loolu ñu tuddee idaafatu tashrif dafa jël malaayika yi idaafa leen askane leen yàlla malaayika yi yàlla moo leen moom kon nit moomu leen jinna moomu leen amul kenn koo xam ni malaayika yi dañuy dox ci sa service ku dul yàlla malaayika yi benn service la ñuy dox mooy service yàlla amul kenn ku leen di sant wala nga leen di yónni wala nga leen di digal wala ñu lay doxal ay soxla amul ku ko wax waxoo dëgg malaaka kenn lay liggéeyal soxla kenn lay dox mooy borom bi moo tax mu moomale ko yàlla bi malaikatillahi taala malaayika yàlla yu kawe yi wa annahum ñoom malaayika yi lan la alquran wax ci ñoom ibadum mukramun ibadum mukramun ay ay jaamu yàlla lañ gis nga malaayika yi li ñuy foor foor li ñuy màgg màgg li ñuy jege-jege yàlla ay jaamu yàlla lañ ibad ay jaamu yàlla lañ mukramun yu tedd hal ataaka xadisu dayfi ibrahimal mukramin fi ibadum mukramun kon malaayika dafa bokk seen seen melokaan mooy ay jaam yu noobul yu tedd lañ yu noobul lañ moo tax mu ne ibadum mukramun fële yàlla wax malaayika yi gane si woon ibrahim mu melal leen mukramin laa yasbiquunahu bil qawl duñ ko jiitu si wax malaayika yi bu yàlla di wax ak moom ñoom dañ naan tekk di ko déglu ba yàlla pare ñu dem exécuté suñu amee lu ñuy laaj laaj mais yàlla du wax ñuy tontu jamais wala yàlla di wax ñuy dugal seen wax ci biir wala yàlla di wax ñoom malaayika yi ah ñu koy interrompre wala ñu ñëw ci kanamu yàlla avant yàlla di wax ñuy wax laa yasbiquunahu duñ jiitu yàlla bil qawli ci ay wax wahum bi amrihi yaamaluun te ñoom ndigalal yàlla keese keese keese la ñuy jëfe aaya bi wahum bi amrihi yaamaluun al imaamul Baghawi bi mu koy tafsir dane fii dafa am taqdim ak taaxir c'est-à-dire dafa am jiital ak yéexal taqdim ak taaxir bi lan la mooy cosaanu aay moo nekkoon wahum yaamaluuna bi amrihi mooy malaayka yi ndigalal yàlla la ñuy jëfe mais su ko aay yàlla tëggee woon noonu ne malaayka yi yàlla la ñuy liggéeyal kon dañuy liggéeyal yàlla mais mën nañ liggéeyal keneen léegi mu daal di koy mu daal di koy seer na daal di koy tënk daal di koy xasru ci moom mu ne wahum bi amrihi yaamaluun ñoom malaayka yi wahum ñoom bi amrihi ci ndigalal yàlla kese yaamaluun la ñuy jëfe kon yàlla su ne malaayka yi sama ndigal kese la ñuy jëfe sama santaana kese la ñuy jëfe keneen na la moom yónni na malaaka di nga ko gëm est-ce que di nga ko gëm ah waxul dëgg parce que yàlla da ne wahum bi amrihi yaamaluun ndigalal yàlla kese dong la ñuy jëfe taqdim ak taaxir yi fii dul xasar comme iyaaka naabudu iyaaka nastain cosaan moo nekkoon naabudu iyaaka wa nastainu iyaaka mais soo yàlla waxee woon noonu mooy yàlla yow la ñuy jaamu yow la ñuy dimbandiku kon yàlla yow la ñuy jaamu yow la ñuy dimbandiku mais mën nañ jaamu keneen en même temps mën nañ dimbandikoo keneen en même temps mu ne iyyaka na'budu yow dong la ñuy dimbandikoo keneen bokkul wa iyyaka nasta'in ah yow dong la ñuy jaamu yow dong la ñuy dimbandikoo keneen bokkul moo tax fii c'est la même chose wahum bi amrihi ya'malun ndigalal yàlla kese la ñuy jëfe kon ku la wax ni day yónni malaaka wala malaaka da koy liggéey day wax léeboon lu pon léeboon lu pon yii xale yi di lépp wala yooyu tane ko sax parce que gars yi liñ ciy nettali dafa bëri Sénégal rek ngay dégg Sénégal nulle part ailleurs Sénégal spécialement spécifiquement Sénégal ngay dégg benn waaye ne la bi nga bi nga bi ko malaaka bi dikkalee mu ne ko nangam malaaka bi ne ko nangam malaaka bi delluwaat ci borom ne ko nangam te kooku du yonante mel ni malaaka bi moromam la Sénégal nga koy dégg fii ay nit ñoo xam ne ñoom chaque jour que Dieu fait dañuy waxtaan ak ay malaaka am ak ñoom ay discussion nekk ak ñoom ci ay grand place ah dem di yéeg di fekk malaaka yi fa monde malaaka yi fa malaaka yi nekk ñu fay dem sans gêne di gis malaaka yi du ñu tiit du ñu perturbé wu du ñu jaxasoo du ñu am psychose loolu Sénégal rek la am te waxoon naa leen fi yonent bi yàlla yónni bi mu gisee Jibril première fois réaction am lan la woon ah jaaxle parce que malaaka dafa ñàng yonent dafa gis Jibril Jibril am juróom benn téeméeri laaf 600 laaf laaf bu nekk bu ko Jibril tàllalee day fatt horizon bi yonent bi du gis asamaan léegi yow ku mel noonu nga toog ak moom di ko gis chaque jour di waxtaan ak moom sans gêne doo tiit doo jaaxle ah te yow jinne rek boo ko gisee dof tàggoog sa sago jommi te malaaka moo gën a foor jinne nga gis malaaka résister jinne boo ko gisee dof boo gisee malaaka résister jinne boo ko gisee départ wala nga tàggoog sago wala nga jommi te malaaka moo gën a foor jinne loolu moo tax ki naan la dafa gis malaaka wala nangam waxi lee bon lu pon la ci bu ñuy nettali bu reetaandu ne sëriñ bi dafa ñëw tukki ba ñëw voyagé ba ñëw fekk benn taalibeem faatu mu ñëw gis mbooloo mi bëri ci kër gi mu ne leen lan la ñu ne ko ah sa sa taalibe diw moo faatu mu ne ya xanaa malakul maw ci daf maa yeb nan lay jëlee ruu sama taalibe ji tàgguwuma daal di jékki-jékki naaw ñu ne ko foo jëm mu ne ko malakul maw ci laay dabi dawa dawa daw ba àgg ci première asamaan fekk malakul mawti di waa da yokk vitesse rokk première asamaan mu ne ko taxawal malakul mawti taxaw mu ne ko tàllal sa loxo mu tàllal loxo mu fël ruu yi bi mu fëlee ruu yi ruu yi daanu mu sempi ruu taalibeem indiwaat daf ko ci taalibe bi xam nga yii bu ñu la koy wax da ngay jàpp ne ay film extraterrestre la alors que fii lañ koy waxee ci dëkk bi fii ay nit di ko wax di ko waxtaane di ko wax ci rajo di ko wax ci télé xam nga bu njëkk am na yu ñu doon wax da nga naan noo gars yi dañuy créer mais léegi ak réseaux sociaux yi chaque jour nga gis toj toj wala déet du ngeen ko gis benn waay bu wax ay mbir yu yéeme maamam dafa naaw fii jàpp ci Kaaba naawee Sénégal ba ci Kaaba gi ne ko rijtee dugge Sénégal kooku ban ban vitesse à l'heure la doon daw ban vitesse à l'heure xanaa fusée sax gaayewul noonu fusée moo tax bu njëkk nit ki da la daan wax yenn yi nga naan non gars yi dañuy créer mais léegi réseau yi moo lay may chaque jour nga gis ko yow ngay ngay posé wu question nit naka la ñemee wax lii nit ku ànd ak xelam normal nan la sañ a waxee wax yu mel nii nga xam ne yu terre à terre la xale yu ndaw yu tuuti yi seetaan mige boo leen ko waxee ñu ne la du dëgg dañ naan la lii du dëgg lii ci mige rek la am mige kon wahum bi amrihi yaamaloon malaayka yi ndigalal yàlla kottu dong kese la ñuy jëfe wallahi yonente bi li muy foor foor mësta yónni jibril yéen jàngeen fenn texte ba yonente bi yónni jibril ne ko demal defal ma tel service gis ngeen ko est ce que am na ko gën a foor ci xeet bi yonente bi yonente bi amul pouvoir boobu faveur boobu amu ko sañ-sañ boobu yàlla defalu ko ko léegi faveur bu yàlla defalul yonente bi ci diina dina ko defal ma sàmba wala demba wala seen maam wala sama maam mën naa nekk mënul nekk yonente bi amul sañ-sañ yónni jibril jibril day ñëw ci yàlla jóge ci borom bi dikk ne ko yàlla nee na nangam yam fa yonent bi jël pratiqué accepté bu dee hadis qudsi la bu dee alquran la mu jël jibril dellu jeex na Moussa musul yónni jibril isa waxi nopp nuux noonu ibrahim noonu boo jëloon idris alyasa zal kifli saaleh huud luut yonent yooyu yépp amu ci kenn koo xam ne mës ngaa yónni benn benn malaaka rek sant ko service amul parce que malaaka yàlla lay liggéey mbindaafoonu yàlla la suñu borom moo ko moom yàllaa ko naan defal mu def toogal mu toog dikkal mu dikk jëlal def ci exécution mission yàlla lañ nekk ñoom yàlla daf leen a bind pour ñu exécuter ay mission ordre la ñuy xaar ordre bu leen yàlla jox rek ñu exécuter suñ paree toogaat jàpp seen jàmbur siqu ñoom nit doomu aadama ku leen di yónni wala ku leen di defloo wala ku leen di digal wala nga leen di tere amuñu loolu ci nit moo tax mu ne wahum bi amrihi yaamaloon mu ne xalaqahum allahu taala yàlla moo leen sàkk ñoom malaayika yi yàlla mi ngi leen sàkk ci leer yonent bi alayhi wax na ci xadis yaa Aïcha bi nekk ci saxi muslim mu ni xuliqal malaaikatu min nuur yàlla mi ngi bind malaayika yi ci leer ba xuliqal jaannu min maarijin min naar yàlla mi ngi bind jinne ci flaamu safara tàkk-tàkku safara flaam ci la ko bind mu ne wa xuliqa aadama mimma wusifa lakum yàlla mi ngi bind seen maam aadama ci lim leen wax ci alquran mooy ci suuf ci suuf la yàlla bind aadama iblis ci tàkku-tàkku safara malaayka yi yàlla mi ngi leen bind ci lumière ci leer ci lumière leen bind ci leer loolu lu moo tax bàyyi xel la moo tax yenn philosophe yi nga xam ne dañoo sànku dañ naan la iblis bu fekkee yàlla mi ngi bind seytaane ci safara waa iblis yàlla wëlbatiku bëgg kaa lakkaat safara safara buy lakk safara mooy jël sa xel di ko dugal ci texte yàlla yi ba pare jàpp ne nag pour yow wax nga fi dara alors que waxoo dara Iblis waxuñu la ne safara la mais dañ koo bind ci safara du yow nit nga nit ki yow ci lan lañ la bindee nit ki ci lan lañ la bindee ci suuf ban léegi naa jël fii suuf sotti ci ndox bàyyi ko tuuti mu xaw a ma dóor la ko ndax di ndax bu ma la dóoree suuf yow mu jege ci suuf di nga yëg douleur bi wala doo ko yëg ah jógal nga mbëkk suuf wala bâtiment bi ñu tabaxee suuf nga mbëkk ko ciment ci boppam suuf la ci suuf la jóge suuf la matière yëpp suuf la c'est-à-dire dafa si biir ay transformation ba mën a wow mën a dëgër damal fekk néegu ban néegu ban nga arrière reculer mbëkk ko ne ban buy mbëkk ban la warul métti nga xool lan mooy doon résultat bi wala ñu jël birigu ban dóor la ko di nga ko yëg wala doo ko yëg da nga koy yëg lan la mooy nekkoo ban moment bii mais sa cosaan ban la iblis dañ ne cosaanam safara la mais jëmmam du safara kon jarul ngay philosophe di ñu dugal ci safara buy lakke safara safara nu mën a lakkee safara léegi yow nit nga kaa ñu essayé ci yow ban rek bu marché nga war a nangu ne kon iblis safara mën na kaa lakk moo tax ñoom foofu lañ dugg naan bu dee iblis ci safara la ko yàlla bind safara warul mën a lakk safara kon iblis bu ko yàlla dugalee safara du am benn benn sens parce que safara ci la jógee ñu delloo ko ci safara yow du nit ci suuf lañ la bind wala déet soo faatoo fooy dugg soo faatoo fooy dugaat ci biir suuf mu denc la suuf si mënal na la dara ba pare suuf si danaa tànc tànc yonent bi alayhi salaatu salaam wax kenn ku nekk ci yéen bu faatoo ba nu dugal ko ci bàmmeelam suuf dina ko dina ko tànc tànc boo xam ni bu métti lay doon mu ne bu fekkoon am na ku ciy mucc Saad ibnu Muaz lay doon waaye moom sax mucc ci alayhi salaatu salaam loolu la wax kon xalaqahumullahu taala yàlla daf leen a sàkk ci leer la leen yàlla sàkkee fa qaamu bi ibadatihi ñu jóg jaamu yàlla wan qaadu ñu daal di def soumission soumission wammatu li taatihi pour topp ko laa yastakbiruuna gis nga malaaka yàlla suñu borom daf leen a daf leen a dindil melokaanu rëy alors que doomu aadama nag moom am na rëy mais malaaka suñu borom nee na ñoom amuñu orgueil rëy nekkul ci ñoom mais nit nag ak jinne rëy mi ngi ci ñoom moo tax mu ne laa yastakbiruun kan moo ko wax yàlla mi xam malaayka yi bind leen moo ne ñoom du ñu rëy rëylu an ibadatihi ci jaamu yàlla bal ñoom jaamu yàlla satisfaction lañ ciy am dafa oyof ci ñoom dañ ci am facilitation diisul ci ñoom par rapport ak nit nit des fois mu sawar ci jaamu yàlla des fois seytaane mu ne ko jaamu yàlla gi diis yi moom des fois mu rëye jaamu yàlla rëye julli wala rëye woor wala rëy a saraxe wala sax mu rëy a aj màkk di fi gis benn borom alal milliardaire vacance bu jotee mu am congé Paris lay dem Madrid wala Las Palmas mësta umra ji waxuma la ak aj màkk musul umra ji waxuma la ak aj màkk te kooku condition yi réunir na ci moom parce que chaque deux mois mu dagg billet dem France wala dem feneen mais umra wala aj màkk dafa ko kon léeg-léeg rëy la orgueil la léeg-léeg nit ki jombal ko boppam fii ngay gis fii ci réew mi nit ku ñu naan la kilifa la ci wàllu diine am xaalis am lépp musul omra ji waxuma la ak aj màkk lan la des fois day rëy jombale na boppam dem foofu takk ñi woddoo ñaari morso di ànd ak nit ñi di daw ñu lay gis naan ah sëñ diw moo nekk nii jombale na ko boppam kooku rëy la nit dafa rëy mais malaaka yi ñoom du ñu rëy ci jaamu yàlla dañ ciy kontaan ba pare ànd ak ci benn sawarte ak benn dynamisme boo xam ni daanaka ci ñoom rek la am moo tax mu ne laa yastakbiruun du ñu rëy an ibaada ci jaamu seen boroom wala yastaxsiruun te du am ak rëccu maanaam jaamu yàlla duñ ko def ba rëccu wa yusabbixuuna alleyla wa nahaar dañuy sàbbal yàlla guddeeg bëccëg léegi fii lu ma ta bàyyi xel waxul wa yusabbixuuna fi lleyli wa fi nahaar dafa xasaf baatu fi xarfu jar bi lan moo tax mooy li yakuna ablax ñaari maanaa yi bokkul bu yàlla waxoon ne wa yusabbixuuna fi leyli wa fi nahaar mooy kon malaayka yi ci guddi gi am na lu ñu ciy sàbbaal yàlla bëccëg bi tamit am na lu ñu ciy sàbbaal yàlla mais duñ sàbbaal yàlla guddi gi yëpp wala bëccëg bi yëpp mais fii lim la bëgg a wax mooy guddi gi yëpp bëccëg bi yëpp ah amul interruption continuité la sans rupture yusabbixuuna leyla dañuy sàbbaal guddi gi waxul ci guddi gi guddi gi wan nahaara di sàbbaal yàlla bëccëg bi waxul ci bëccëg bi gis ngeen différence bi ñaari dañuy sàbbaal yàlla guddi gi ak bëccëg bi bokkut ak dañuy sàbbaal yàlla ci guddi gi ak ci bëccëg bi moo tax amul xarfu fii bu amoon fii rek mooy day nekk zarfu zaman maanaam day sàbbaal yàlla ci benn temps ci guddi gi ak ci benn temps ci bëccëg bi mais ñoom seen sàbbaal yàlla c'est-à-dire seen jaamu yàlla dafa nekk lu loo xam ne dafay sax lu continuer la amul amul amul rupture laa yafturuun duñu découragé duñu tàyyi xam nga yow nit da ngay jaamu yàlla des fois nga sonn nga tàyyi mais malaayka yi duñu tàyyi mu ne xajabahumullahu anna ah lii aka waa Sénégal a ko war a dégg xajabahumullahu anna suñu borom yàlla daf ñoo daf ñoo baare malaayka yi duñ leen gis gars yi dañuy gis malaayka ñoom wala duñ leen gis dañ leen di gis wala déet pas-pasu ahlu sunna lan la xajabahumullahu anna yàlla daf ñoo daf ñoo baare malaayka yi kon fii ku la fi wax malaayka la gis boo moytuwul dafa am ay service wala mu départ wala mu am ay trouble quelque part wala jinne feeñu ko wala ila axirihi wala mu daanu ci saret xajabahumullahu anna yàlla daf leen daf ñoo baare malaayka yi fala narahum xanaa leer na duñ leen gis yow nga ne gis nga ko duñ leen gis nga ne gis nga ko kii naan la malakul mawti moo ma dikkal kii naan la jibril kii naan jibril ba mu dajeeg ba mu dajeeg waaja ca dëkk sàngam ca mbaar ma kii naan ca tefes ga la dajeeg moom kii naan ca biir géej ga kii naan ah, ci jaww ji lañ daje façon bu nekk nga koy dégg te hajabahumullahu anna boobu aadama boppam ni ko yàlla bindee attanul gis malaaka lu attanul gis jinne mën ngaa gis malaaka kon falaa naraahum duñ leen gis wa rubbama waaye wa rubbama waaye léeg-léeg kachafahum ah loolu mooy exception bi kachafahum li baadi ibadihi léeg-léeg yàlla mën naa may lenn ci jaamam yi ñu gis ko lenn ci jaamam yooyu li ci wér mooy yonent yi la faqad raa annabi sallallahu alayhi wasallam jibril yonent bi gis na jibril wala gisu ko ah yonent yàlla bi gis na jibril dëggantaan ñaari yoon ci melokaan bi ko yàlla bind yeneen yoon yi day gis jibril jibril ñëw ci forme nit parce que ñaari yonent bi gis jibril moom dong la daa wéetoon jibril ñëwal ko ci melokaanu malaaka première fois bi mooy première fois bi mooy ci xaaru xira mooy bi ko yàlla bi ko yàlla yónnee pour mu indil ko waxyu bi deuxième fois bi mooy bi yonent bi nekkee xale am 6 ans nekk ci àll màkka bi di fo fekk mi ngi ci xalima ci xalima la nekkoon mu yoro ko yaayam yoru ko mu nekk foofu di fo ànd ak ay xale jékki-jékki jibril wàcc ci asamaan téye ko xale yi daw jibril daaneel ko xar xol bi génnee li nga xam ni mooy tax nit ki di def bàkkaar nga xam ne dafa ne ci biir nit ki mooy tax seytaane di ko dominer dend ak xol bi yonent bi alayhi salatu salaam jibril xar xol bi génnee ko def ko ci benn ndabu or raxas ko ak benn ndox jël ko dugalaat ko ci biir ci biir xolam muy benn opération chirurgicale bu ko jibril defal dellowaat xol bi yonent bi alayhi salaam jugaat na cocc anas nee na des fois doon naa xool yonent bi may gis trait ak rëdd marque li nga xam ne mooy xar-xar dënd bi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam deux fois boo yooyu la yonent bi gis jibril ni ko yàlla bindee xaqiqatan ñaari yoon yooyu ci xaaru xiraa bi mu koy indil waxyu bi ak ci àll bi bi muy xar dëndëm yàlla wàccee ci saar benn saaru alquran alam nashrah laka sadraka xanaa du man maa la ubbil sa dënd bi xar ko raxas ko dindi ci bépp salte bépp tilim tilim lépp luy tax nga ñaaw njort wala soxor wala iñaan wala xat xol wala mën a def bàkkaar wa rafanaa laka zikrak ñu yëkkati sa tur ba fu ñu tuddee yàlla tudd la ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah ginnaaw bi la gaa ñi waxee ne yow sa papa dafa teel a gaañu da ngaa ay gaaf nga ci am quelques mois ci sa biiru yaay avant ngay judd sa papa gaañu sa yaay judd quelques années ah gaañu yar la gaañu ñu indi la sa maam Abdul Muttalib mu yar nekk ak yow quelques jours gaañu ñu yóbbu la ci sa baay Abdul Muttalib mu gaañu nga takk Khadija mu gaañu say doom di dem benn benn yow da nga mel da nga ay gaaf day wax ko loolu yàlla wàccee ñaari saar muy alam nashrah sadraka ak inna ataynaaka al kawsar ñi lay wax ne yow yaay abtar muy abu lahab ak abu jahl nadr ibn al xaaris kàcceer yooyu yàlla wàcceel ko inna ataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa al abtar ñi nga xam ne ñoo la bañ ñoo perte mais yow pertoo waxaat ko ne ko alam nashrah laka sadraka loolu mooy yàlla daf ko ubbil dëndëm ñaar yooyu la ko gis yi ci des yëpp jibril lay ñëw ci melokaanu nit lu tax mooy day fekk yonent bi ak ay nit te nit ñi àttanuñ gis jibril saxaaba yi ni ko yàlla bindee jibril ñëw ci forme nit loolu feeñ na ci bi nga xamee ni jibril ñëw na ci hadis omar ibnul xataab bu gudd ba jékki-jékki sol yére yu weex karaw gi ñuul kuk te tàngi tànk yi pëndul yére bi pëndul gis ñu ci moom lenn luy waññe dafa voyageur la te moom dëkkul Médine parce que xàmmee wuñ ko ci waa Médine te ku dëkkul Médine sooy dugg Médine foog nga traversé désert bi ku tra traversé désert looy def pënd te waa ji pëndul loolu moo jaaxal Omar waa ji pëndul te Médine moom ku fi dëkkul boo ko duggee foog nga traversé désert bi kon waa ji dëkkul Médine kon sûrement biti Médine la jóge mais pourquoi pëndul parce que waa ji jaarul ci désert bi ci kaw la jóge ñëw jël melokaanu nit loolu moo tax pëndul loolu moo frappé Omar moo tax mu ni waa ji gis ñu ci moom benn effet bu yoon ku tukki ba ñëw da ngay sonn bu fekkee da ngaa jaar ci yoonu suuf sel yére yu weex yére yi war naa poussière say tànk war naa poussière mais gisuñu moom benn effet buy wane ne voyageur la mu agsi te xam na ko yonent bi bi mu ñëwee laajte wu ko dafa jubal toog ci kanamam commencé ko laaj kon xam na yonent bi kon waa ji yonent bi du du étranger ci yonent bi miinante nañ xamante nañ kon falaa naraaxum duñ leen gis wa rubbama waaye peut-être kashafahum li baadi ibadihi yàlla mën naa def yenn ci ay jaamam découvrir gis ko faqad raa annabiyu saa sallam jibril yonent bi gis na jibril ala suratihi ci melokaanam dëggantaan lahu sittu miati janaax jibril am juróom benn téeméeri laaf léegi nag ah xat sabda al ufuq gis nga nee na xat sabda al ufuq juróom benn téeméeri laaf yi xat sabda dafa fatt al ufuq li nga xam ne mooy horizon bi jibril laafam bi bu mu taalal day fatt horizon bi foofu la yem ji- jibril juróom benn téeméeri laaf la am jeex na leneen loo fi dégg jibril am na juróom benn téeméeri gémmiñ juróom benn téeméeri bopp juróom benn téeméeri tànk juróom benn téeméeri làmmiñ juróom benn téeméeri bët juróom benn téeméeri nopp dañ ko cee yokk loolu ay saf-safal la mais bokku ci gaa yi ñoo ko ci yokk li sax ci xadiis yi mooy juróom benn téeméeri laaf surtout mi ati janaax jeex na waaye juróom benn téeméeri yooyu gaa yi di ci yokk juróom benn téeméeri gémmiñ juróom benn téeméeri bët juróom benn téeméeri la di- di keree rek di dolli di teg dara saxu ci juróom benn téeméeri laaf yi moo ci sax texte yi fu ñu yem dañ fay yem parce que amoo xam-xam ci jibril mosoo ko gis bu ci dolli lu ci yokkul bul wax ci loo xam ni amoo ci xam-xam li la texte bi wax yem fa mu ni raa nabi salaa sallam jibril ala suratihi lahu sittu miati janaax qad sadda al ufuq wa tamathala jibril jibril melo fo feeñu na ci melokaan li mariam ñeel mariam basharan sawiyan nekk nit koo xam ni nit ku mat la fa xaatabathu wa xaatabaha jibril wax ak mariam mariam wax ak moom yàlla mi ngi wax ci suratu mariam wa arsalna ilayha ruuxana fa tamathala laha basharan sawiya dañoo yónni jibril ci mariam mooy lan mooy bi mariam waree am doom mariam bi mu waree am doom jibril la yàlla yónni jibril ñëw ci melokaanu nit parce que mariam du yonant xoolal mariam du nit ku sell la nit ku sell ku baax la mais du yonant yàlla yónni jibril ci moom léegi kon am nañ dalil bi wane ne mariam gis na jibril wala amuñu dalil am na kan moo ñu ko wax yàlla bu ñu ko yàlla waxutoon est-ce que dinañ ko gëm déedéet parce que mariam di yonant normalement warta gis malaaka warta gis jibril parce que jibril mooy malaaka bi nga xam ne li ko yàlla sant en tant que mission mooy intermédiaire la diggante yàlla ak prophète yi te mala mariam du prophète jibril mooy indi wax yi ci yonent yi mais mariam du prophète mariam lan la siddiqa wa ummuhu siddiqa siddiqa la siddiqa mooy degré bi ñëw après yonant mariam foofu la bokk yépp maanaam martabatu siddiqa la jege na yonant mais du yonant yàlla dafa def exception ci mariam du prophète mais mu yónni ci moom jibril ba pare xibaaruñu ci suuratu mariam ci tàmbalin bi ne maa yónni jibril ci moom fa arsalna ilayha ruuxana ruux mooy jibril jibril day ñëw ci alquran léegi la ñu tuddee ko ruux ruuxul qudus mooy jibril fa arsalna ilayha ruuxana fa tamassala laha mu ñëw ci forme basharan sawiyan nit koo xam ne ku mat la mariam bi mu ko gisee dafa tiit qaalat inni auzu birrahmani minka in kunta taqiya maa ngi ñaan yàlla musal ma ci yow bu nekkee ku ragal yàlla nga man damaa daw génn dëkk bi pour daw góor ñi ñëw fii jaamu yàlla loolu laa niseen nga ñëw topp ma ba fii jibril na ko innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki xulaaman zakiya man yàlla ma yónni prophète bu jóge ci yàlla la mu yónni ma ci yow yonent yàlla la yàlla dafa maa yónni ci yow ngir lan ngir ma may la doom mariam bàyyi lim doon def tiit naka laay amee doom te aw ma jëkkër aw ma borom kër nekkuma ak góor mu ne ko yàlla noonu la su bëggee am su bëggee def mbir danaan ko amal mu am foofu borom xam-xam tafsir yi ñu ne ci échange boobu dox diggante Mariam ak Jibril automatiquement Mariam ci la sentir ngelaw dugg ko am na ci biiram fekk mi ngi woon ci teen bi léegi nag borom xam-xam yi wute ndax Mariam dafa ëmb fi saasi matu fi saasi wasin fi saasi wala Mariam dafa ëmb ëmb normal. neuf mois ëmb ëmb normal ba am doom ban moo ci am yenn borom xam ñu ne histoire Isa ak Mariam lépp ay miracle la comme lépp ay miracle la kon li logique nangu donte amuñu ci détail parce que alxuraan détaillé wu ko hadis détaillé wu ko kon dañuy jàpp ne comme lépp ci cadre miracle la Isa lépp am miracle la kon dafa ëmb fi saa si matu fi saa si wasin fi saa si ñenn ñu ne déedéet loolu su fekkoon ne miracle boobu daf dafay nekk miracle buy dooleeku ci miracle Isa yi kon alxuraan wax ko wala hadis wax ko. léegi maa daama alquran waxu ko hadis waxu ko dañuy jàpp ne dëgg la histoire u Isa lépp ci wàllu miracle la aju mais Mariam dafa ëmb normal matu normal wasin normal ñu ne lu tax ñu ne bi yàlla di waxee fa aja ahal maxaad bi nga xamee ne mettit bi jàpp na ki nga xam ne mooy Mariam mettitu ëmb bi da koo jàpp te mettitu ëmb kum jàpp mooy da ngaa matu matu normal lan la dem mooy suñu borom da ko orienté ne ko demal ba ci tàndarma gi nga daal di koy yëngal tàndarma bi daanu bu tooy nga lekk ci tàndarma bu tooy bi Mariam lekk ci tàndarma bu tooy bi loolu calmer douleur ëmb gi borom xam ci lañ sukkandiku wax na jigéen bu yëgee ne ëmb na lekk tàndarma bu tooy wax ñu tàndarma bu wow bi de bu tooy rutaban janiya tàndarma bu tooy Mariam jël ko lekk ko mbir mi bàyyi kon wax jooju di gën ñaari wax yëpp am na mais li nga xam ne moom la borom xam-xam yi gën a lëngal ibnu kasir Baghawi ak imaamul Maraaxi ci tafsiram mooy Mariam dafa ëmb juróom-ñeenti weer wasin mais nag comme dafa wéetoon te tamit yàlla def ëmb bi nekkul ëmb boo xam ne bu marqué la bu feeñ bu fës moo tax ay nitam bàyyiwuñ ci xel dañoo jékki-jékki rek Mariam wasin mbir mi bett leen ñu ne ko ah Mariam mbir xew na sa papa nekkutoon nit ku bon sa yaay nekkutoon taxawaalu kat yow nekk génn bi nga génn dëkk bépp ne da ngay jaamu ji yàlla nga ñëw def lu ne weng yàlla ne ko bul wax joxoñol Isa mu wax ak ñoom mu joxoon leen xale bi ñu ne ko nag doo def li ne weng ba pare buggu ñoo jommal naan ñu nañ wax ak xale xale bu nekk ci biir su ni ñuy wax ak moom Isa daal di wax kàddu ko mu waxoon inni abdullahi ataneel kitab ba mu jeex setal yaay ànd ak loolu yëpp juif yi ba jamono ji juif yi ba moment bi ñuy wax ak yéen juif yi dañ ne Isa doomu njaalo la moo tax juif yi gëmuñu Isa ñoom prophète yi ñu gëm ci Moussa la yem Moussa ak Haroun fa lañ freiné gëmuñu Isa chrétiens yi pour tontu leen Paul bi ma leen waxoon démb la Saint Paul bi mu ñëwee rôle bi mu joué juif yi joué ko ko pour tontu juif yi ñu ne comme yéen da ngeen a bañ Isa ba ne Isa du doomu du du du doomu njaalo la doomu njaalo la ñun lañ leen di wax ne Isa yaayam da koo jur sans mu ànd ak góor mais baayam moo yàlla ñu ne Isa dafa am partie naasuut ak partie laahuut partie naasuut bi mooy li mu jël ci yaayam mooy partie nit gi partie yàlla gi mooy li mu jël ci baay ji mooy yàlla moo wax Isa dafa nekk am partie nit ak partie yàlla wal iyaazu billah laqad kafara alladina qaalu inna allaha salisu salaas ñi wax ne yàlla ñett la muy le père le fils et le saint esprit ñoom ay yéeféer la parce que yàlla du noonu kon ñëw na ci Maryam am melokaan boobu wax ak Maryam Maryam tontu ko wa ata ila nabi jibril ñëw na ci yonent bi salaa sallam wa indahu sahaaba yonent bi nekk ak sahaaba yi bi suurati rajulin mu ñëw ci melokaanu rajulin benn waay boo xam ne laa yuraf kenn xamu ko wala yura alayhi asaru safar gis ñu ci moom benn effet de voyage shadidu bayaadi siyaab shadid mu daal di foncé wala tar bayaadi weexaay asiyaab yéreem mu sol yére yu weex tàll shadidu sawaadi shaar mu daal di tar sawaadi ñuulaay ashaari karawam karaw gi daal di ñuul kukku fa jalasa ila nabi mu toog ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi mu daal di sësale ñaari oomam ci oomu yonente bi wa wadaa kaffayhi ala fakhidayhi mu jël ñaari loxoom teg ko ci ay poojam loolu teggin la comportement yar la boo toogee ci kanamu koo xam ni dalay jàngal wala dalay jox xam-xam nee na wa xaataba nabi sallallahu alayhi wasallam wa xaataba nabi sallallahu alayhi wasallam mu daal di wax ak yonente bi wa xaatabahu nabiyu yonente bi daal di wax ak moom sallallahu alayhi wasallam wa axbara nabi sallallahu alayhi ashaabahu annahu jibril bi yonente bi wax ak moom mu laaj ko maa huwa al islaam mu wax ko maa huwa al iman mu wax ko maa huwa al ihsaan mu wax ko mu laaj ko lu aju ci màndargay bés pénc yonente bi ne ko ki koy ki ki koy laaj gënu ki ki mu koy laaj gënu ko koo xam mu jóg dem mu ne ko wax ma màndarga yi signes yi mu wax ko ko mu jóg dem bi mu jógee dem saxaaba yi xamuñu waa ji ba léegi mais yonente bi moo leen informé innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum ci beneen riwaaya ataakum yuallimukum amra diinikum jibril la dafa ñëwoon di leen jàngal seen diine dafa ñëwoon di leen jàngal seen mbiru diine kooku yonent bi moo ñu xibaar ne ji hadis boobu waa jooju ñëwoon kenn xamu ko yonent bi moo wax ne jibril la su ko waxutoon kenn du ko xam mais moo ne jibril la jibril ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci yeneen façon yoo xam ni ñëw na ci melokaanu ku ñu xam parce que lu gën a bëri dafa doon jël forme saxaaba bi ñuy wax dexyata alkalbi dexyata alkalbi bokkoon ci saxaaba yi gën a rafet ci saxaaba yi jibril la doon ñëw jël forme nu roog moom trop ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais yonent bi su ko gisee day xam ne kii jibril la wa nu'min dañuy gëm bi anna lil malaikati amalan kullifu biha malaayka dañu am ay liggéey yoo xam ni dañ leen ko sant ñu koy exercer yàlla moo leen ko sant fa minhum bokk na ci malaayka yi ñu xam ak seen i métier jibril mooy jibril jibril mooy chefu malaayka yi mooy seen leader mooy seen njiit te moo gën ci malaayka yi ne yonent bi gënee ci yonent yi noonu la jibril gënee ci ci malaayka yi al muwakkal moom la yàlla délégué al muwakkal moom lañ délégué bil wahyi ci wàllu wahyu bi yanzilu bihi min indillah daf koy wàccee jële ko fi yàlla ala man yasha ci ku ko soob min anbiyaihi wa rusuli ci yonantam kon jibril loolu ma doon mission mais gis nañ ko mu dem ci ko doon yonant koo kan la jibril mission mooy dañ ko délégué muy yónni muy jël wahyu di ko jëlee ci yàlla di ko yóbbu ci malaayik ci yonant yi n'est-ce pas mais jibril gis nañ ko mu dem ci ko doon yonant kan la Mariam léegi kan moo ñu wax ne dem na ci Mariam kan moo ñu ko wax yàlla léegi dafa am ñoo xam dañ naan non gaa ñi gaa ñi seen xam-xam moo gàtt parce que dañ naan Jibril ci yonante rek lay dem mais Jibril dem na ci Mariam te Mariam du yonant kon kay Jibril mën naa dem ci keneen ku baax léegi ñun kan moo ñu wax ne Jibril dem na ci Mariam yàlla léegi yow boo nee Jibril dem na ci keneen kan moo ñu ko wax yàlla wala yow yàlla moo ñu ko wax wala yow yow yow noo mën a xamee ne Jibril la foo jëlee xam-xam bu lay wan ne ki dem ci waa ji Jibril la xam-xam bu foo ko jëlee fan nga jëlee xam-xam bi ku la ko wax wala yàlla moo la ko sol mënul nekk moo tax koo fi wax ne gis na jibril wala gis na nangam dañ koy dugal ci asaatirul awwalin ci léeboon lëppoon yi mu ne wa minhum bokk na ci ñoom mikail bokk na ci malaayika yooyu mikail mikail mooy kan mooy al muwakkal bil matar wan nabaat moom la yàlla sant lu aju ci wàllu wàccee taw kañ la taw bi war a wàcc taw bi ban volume lay toll ndox mi nu muy toll yan dëkk la war a wàcc yan dëkk la war a laal ndax tawu jàmm ak salaam la taw bi daaneel ay garab la taw buy daaneel ay bâtiment la taw buy daaneel ay ay oto la ah taw bu ànd ak ngelaw la wala taw kese la malaaka boobu di mikaayil moom la ko yàlla délégué loolu mooy liggéeyam moom taw bu war a wàcc dina ko wàccee fan la war a wàcc fu war a tooy dina tooy fu ko yàlla wax na tooy day tooy ah loolu mooy liggéeyam wan na baat mooy saxal gàncax yi gàncax yi muy végétal bi moo koy saxal ba màgg li ñu war a lekk lu animaux yi war a lekk lu war a ñor lu war ta ñor lépp moom la ko yàlla sant wa minhum bokk na ci malaayika yooyu israfil israfil mooy kan al muwakkal mooy ki ñu délégué bi nafxi mu ëf fi suur ci li nga xam ne mooy mbiib bi buftu bi buftu boobu ñoo ci ay xadis ne béjjën la béjjën la boo xam ne yaatuwaayam toll na ni asamaan léegi imaginel béjjën boo xam ne yaatuwaayam toll na ni asamaan kan moo koy ëf man wala yéen kan moo koy ëf ab malaaka malaaka mooy ëf lu toll noonu loolu moo tax ñépp a koy dégg moo tax ku ko dégg daanu dee ku ko dégg rek dee ñëpp ku koy dégg buy ëf aduna tukki na ñëppay dee bu ëfaatee deuxième fois bi nit ñi dekki waaye diggante ñaari ëf yi dox na 40 Abu Hurayra nee na dox ñu ñeen fukk dama xamul ndax ñeen fukki fan la ñeen fukki weer la wala ñeen fukki at la waaye li wér mooy 40 ans la ñeen fukki at la diggante bi Abu Hurayra wax ko ci xadis bi dafa ñëw ci beneen riwaaya ci Tabaraani bu ko leeral kon xiina bi nafx fi suur moom mooy ëf ci buftu bi xiina saaqi wan nusuur xiina saaqi mooy bu nit ñiy dee adunay tukki wan nusuur ak bu nit ñiy dekki a saaq mooy dee gi ànd ak tukki aduna wan nusuur mooy dekki gi kon ëf gi ñaar la ëf gi nga xam ne mooy tukkal aduna ak ëf gi nga xam ne mooy dekkil nit ñi a saaq wan nusuur wa minhum bokk na ci malaayika yooyu malakul mawti qul yatawaffaakum malakul mawti alladi wukkila bikum wax leen malakul mawti mi nga xam ni moom laa délégué mu jël ruu yi moo leen di rey léegi benn waaye mën naa wax ne waaw malakul mawti mooy rey jaami ñu ne waaw mais malakul mawti lu mu mën a reyandoo cent personnes cinq cent personnes un million personnes ci un ci benn moment malakul mawti lu mu mënee loolu mën na ko wala mënu ko waaw kii xalaat loolu dafa xalaat ne malakul mawti xanaa nit la mais malaaka du nit benn beneen bi benn waay moo mën a toog Senelec Senelec bés benn bouton Dakar yëpp coupé courant benn bouton la bés est-ce que daa dugg kër gu nekk ñëw dindi compteur kër gu nekk mu ne dindi compteur bi dugg fi dindi compteur génn fi dindi compteur benn bouton rek la laal lan la dafa am incendie bu am fële courant mu ngi lakk gaawal coupé ñu courant bi quelques minutes ñu réparé ko balaa muy indi ay dégâts benn bouton lay bés tëj Dakar ñàkk courant nit mën na loolu waaw léegi yàlla mi sàkk malaakaam nga xamoo nu mu ko sàkkee. xamoo ban force la ko jox xamoo fan lay laal xamoo lu muy def ruu yi dama ndox da ngay jéem a xalaat waa malakul moo ci nan la mënee loolu aka koo mën aka koo mën yàlla jox na ci suñu dund gi ay misaal yoo xam ne li muy joxe mën nañ ko dégg ay exemple yoo xam ni yu concret la yoo xam ni li yàlla wax mën nañ ko dégg mu leer nañ malakul mawtu kon moom la yàlla délégué bi qabdi ci ngëpp al arwaax ruuxu jaam yi indal mawti bu ñuy faatu wa minhum am na ci ñoom malakul jibaal malaaka yi nga xam ni ñoom la yàlla sant ñuy wàccee montagnes yi di ko daaj wala tas montagnes yi wala li nga xam ne mooy dundalaat ay montagnes ñoom la ko yàlla sant wa minhum bokk na ci ñoom maalik maalik bi nga xam ne xaasinu naar mooy garde safara tegtal bi mooy wanaa daw yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuka gars yi bu lakk gi méttee biir safara dañuy woo ne ko eh Malick waxal yàlla mu rey ñu dee benn yoon bañ a dundati nga xam ne dañuy dee rek mu jeex mais duñ fi nekk di lakk di lakk di lakk di lakkaat di yëg douleur yi parce que lakk gi dafa métti kon waa safara ñoo yàlla dafa nettali ne ñoom ñooy woo malaaka bi garde safara jaar ci turam ne ko yow Malick waxal yàlla mu rey ñu ñu dee ñu mu éliminer ñu benn yoon loolu lañ bëgg mënum bokk na ci ñoom malaayka ay malaaka yoo xam ne mu wakkaluuna ñoom la yàlla délégué bil ajinnati aljinna naam daane la fi ajinna mooy li nga xam ne mooy liir yi nekk ci seen biiru yaay fil arham ci biiru yaay yi loolu leer na ci hadisu abdullah bin mas'ud haddasana as-sadiqu al-masduq inna ahadakum la yujma'u xalqahu fi badni ummi arbaina yawma nutfa ah summa yakunu alaqa mislu zalik summa yakunu midra mudra mislu zalik summa yursalu ilayhi almalak fa yanfuxu fihi ruux daal masud nee na netti nañu ki dëggu te yàlla dëggal ko ñëpp dëggal ko mooy kenn ci yéen bu ko yàlla naree créer daf koy bind mu nekk 40 jours ndoxu mani yu ci biir yaayam 40 jours deret bu forme 40 jours morso yàpp 40 40 40 muy 3 fois 3 fois 40 120 jours la 120 jours boo ko divisé par 30 yi mu jox la 4 mois 10 jours 4 mois 10 jours yooyu liir su ko amee ci biiru yaayam am na ruu moo tax ci charia dañuy considéré ci moment boobu ku def avortement boo xam ne yaa ko tey rey nga bakkan ci charia bu nekkoon ci jugement islamique dañ lay jugé ku rey bakkan te yaa ko tey mu nga jël comprimé wala nga dem pikiiru pikiir boo xam ne da ngay éliminer xale bi te yaa ko tey amoo benn avis médical bu la wax ni éliminer xale bi boo xam ni xale bi croissance am ci biiru yaayam dafa menacé santé yaayam wala viwu yaayam ci cadre boobu la charia naan nañ ko éliminer tant que loolu amul dañ koy bàyyi bu màgg da nga koo am ci yoon da nga koo am ci lu dul yoon xale bi moom day judd. kon hadis boobu li muy wane mooy bu amee 4 mois 10 jours yàlla yónni malaaka bi malaaka bi nekk ci biiru yaayam ñëw fa yaay ji du ko gis du xam fu mu jaar du ko sentir sax ëf ci biir xale bi mu am ru bopp génn nopp génn bët tànk mu commencé dund yaay ji di yëg ni léegi biir bi am na lu ci yëngatu di yëg ni léegi am na luy yëngatu ci biiram am na luy dund ci biir bi kooku lu lu yéeme la loo xam ni hadis bi dafa am rapport bu mag ak lu aju ci wàllu wàllu science wa axarun mu wakkalun bi xifzi bani aadam yeneen malaaka yoo xam ne suñu borom da leen a sant ñuy protéger doomu aadama di protéger nit di protéger nit loolu mooy ñaari malaaka yi nga xam ni dañuy nekk nit saa su nekk wa axarum wakkuroon bi kitaabati amalihim li kulli shaxsin malakaan yéen malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf nit ku nekk am nga ñaari malaaka léegi loolu yow bu fekkee yéen ñi nga xam ne da ngeen di thèse synthèse antithèse nit ku nekk boo amee ñaari malaaka malaaka ak nit léegi ku ëpp boo ko boo defee synthèse bi lay am malaaka ak nit kan moo ëpp nit ku nekk am nga ñaari malaaka yu ànd ak yow malaaka ak nit lu ëpp léegi waaw malaaka moo ëpp loolu loolu c'est terre à terre lu logique la nit ku nekk ñaar nit ku nekk am nga ñaari malaaka kon malaaka malaaka yooyu mooy nekk nit ñi de bokkut ak yeneen malaaka yi dox yeneen mission yi malaaka xeer ak malaaka gàncax yeeg malakul mawteeg malaaka yi nekk safara yi nekk àjjanaak yooyu yëpp bokkut mais malaaka yi nekk ak nit ñi rek kenn ku nekk am nga ñaar am nga ñaar léegi soo ko jéemee lijjanti ci wàllu xel am naa ñaari malaaka xaaral ma xool fii wala xaaral ma xool fii da nga sonal sa bopp texte moo la wax ne am nga ñaari malaaka yu nekk ak yow kii gauche kii droite kii di bind lu baax kii di lu bon kii di bind lu bon xadis Abu Hurayra moo gën a leeral yataaqabuuna fiikum malaaykatum bil layli wa malaaykatum bin nahaar malaayka dañuy relevanté ñi dañuy ñëw guddi nekk ak yow yéeg dem rendre compte yàlla suñ demee ñi neen ñëw gontu si ànd ak yow nekk bu seen heure wàcc jotee ñu wàcc ñeneen ñëw noonu lañ koy jàppalante kon malaayka yi seen seen monde bu yéeme la boo xam ni kenn amu ci benn information benn idée lu dul lu ñu ci yàlla wax ak yonentam mu ni anil yamini wa anil shimali qaid malaaka bi anil yamin sa ndeyjoor la nekk wa anil shimal ki sa càmmoñ la nekk qaidun ñu toog dañoo toog maa yalfidu min qawlin amul benn kàddu buy génn illa ladayhi lu dul kàddu googu day nekk kàddu goo xam ne dafay jaar ci raqib raqib mi nga xam ne ku mën a ku mën a ku mën a comptabiliser la raqib dara du ko rëcc détail du ko rëcc ku mën a comptabiliser la atiid mooy koo xam ne ku wóor la ku wóor la ku wóor ku maîtriser ku am compétence ci li ñuy def la ñoom ñaar suñu borom noonu la leen melal wa axaruuna yeneen malaaka yoo xam ne wakkaluuna dañ leen a délégué bi suaalil mayit ñuy laaj ci dee muy nakir ak munkar baada al intihai min taslimihi ila maswa buñ jëlee nit ki jébbal ko boromam yóbbu ko ci almeere lan moo tax mu préciser li dafa am solo parce que nit ki bu faatu woon ñu bàyyi ko ci morgue bi malaaka yi duñ ko laaj tant que suuluñu ko parce que nakir ak munkar duñ ñëw ci morgue bi ñoom bàmmeel rek la ñuy xaar dafa nekk hôpital ñu ngi koy xaar dafa nekk ci avion ñu koy transféré Europe ba Afrique dugal ko ci kees wala feneen ñoom amuñu ak moom soxla tant que dugul ci bàmmeelam moo tax ñu ne baadal intihai min taslimihi ila maswaahu ah bu demee ci këram ga muy bàmmeel bi yatihi foofu la koy dikk malakaani ñaari malaayka yi yasalaanihi ñu koy laaj an rabbihi boromam wa diinihi diineem wa nabihi yonantam parce que dañu àggale lii rek mu jeex fa yusabbitu llahu allazina amanu su ko defee nag foofu lii mooy am fa yusabbitu llahu allazina amanu yàlla dafay dëgëral gaa ñi gëmoon bil qawli saabit ci wax ju dëgër jë fil xayaati dunia fii ci àdduna day dëgëral seen làmmiñ waaye wa fil axira fii lu ñu ci jublu du al axira xaqan mais mooy barzaq bu ñu ñëwee seen bàmmeel suñu borom day dëgëral seen làmmiñ li leen di laaj man rabbuka kuy sa borom ñu tontu ko xale yi di ko fooyee naan bu ñu ma laajee loo rabboon ma ne li ma rabboon jaay naa ko man rabbuka tekkiwul loo rabboon dèjà tekkiwul loolu du loolu kenn laaj la loo ràbboon li nga laaj mooy kuy sa borom loolu lañ la laaj kuy sa borom ma rabb ko kuy sa borom maa dindi ko luy sa diine man nabi yu ko ku doonoon sa yonant nga xam ne loolu mooy al usulu thalasa muy ñetti fondement yi nga xam ni da nga ko war a dund fii mooy maarifatul abdi rabbi da nga war a xam kuy yàlla kuy sa borom ba doo ko jaawaleeg sa moroom maarifatul abdi diini diineel islam bil adilla xam diineel islam ci ay dalil doo ko xam nii nii rek mais xam ko ci ay tegtal lii lu tax mu araam lii lu tax mu dagan wa maarifatul abdi nabihi jaam bi xam yonantam ñetti yooyu moom lañ leen laajat sa bàmmeel man rabbuka maa diinuka maa nabiyuka moom lañ leen laajat sa bàmmeel mooy al usulu salaas war nga koy dund fii soo faatoo buñ la koy laaj nga mën a réussir moo tax foog yàlla dëgëral parce que jàkkaarloog malaaka war ko tontu yow fii ngay jàkkaarloog commissaire de police. mu lay questionné ngay patiner noo tudd nga fàtte sa tur noo tudd nga fàtte sa tur tiit ba fàtte sa tur di hésité noo tudd ngay hésité noo sant ngay hésité commissaire de police la waaw boo jàkkaarloog malaaka nag bu la yàlla dëgëralul tasbiit bu la ko yàlla defalul bul malaaka yi laaj doo nekk waaw malaaka ni ko yàlla bindee nga jàkkaarloog moom mu lay laaj nga nekk ci biir pax encore nga xam ne fii amul daw amul jéem a dribble amul jéem a tappale naxaate amul amul làqatu ci ginnaaw kenn wala fenn pax la yéen a fi nekk jàkkaarloo ñu lay laaj nga war a tontu bu la yàlla dëgëralul même boo nekkoon ci lu baax ba moytuwul nga patini nga nga nga nga perdre réseau mën ngaa perdre moo tax suñu borom foog mu dëgëral moo tax yàlla mu ni yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayati dunya wa fi l axira waaye wa yudillu llahu alzalimin tooñkat yi fi newoon nga xam ne tooñ ci la nekkoon tooñ yàlla tooñ jaamu yàlla yi tooñ seen bopp tooñ rek tooñ yaa daf leen di day sànq da leen di sànq ba duñ mën a tontu loo yafalu llahu ma yasha yàlla mooy def lu ko soob te moo xam lu ko soob wa minhum al malaika am na ci ñoom malaika al muwakkaluun bi ahlil janna malaika yi nga xam ni ñoom la ñoo nekk buntu àjjana dañuy séen waa àjjana ak seen leer yi kontaan ci mel ni ñoom ñooy dugg àjjana kontaan ci jaam yi ñëw ñu dugg àjjana taxaw ci buntu àjjana yi di leen gàttandu di leen wax wax ju neex di gàttandu nitu àjjana yi ah di leen dalal seen xel commencé leen informé ci jàmmi àjjana te gaa yi dugguñ moo tax mu ni al muwakkaluuna bi ahlil janna lan la ñuy def yadxuluuna alayhim min kulli baab dañuy génn ci bunt bu nekk di ñëw di xool si waa àjjana naan leen salaamun aleykum bi ma sabartum yàlla jàmm nekk ci yéen gu bàyyeekoo ci yàlla ci li ngeen muñoon parce que lii àjjana ku muñul munoo ko am foog nga muñ bànneex yi foog nga muñ mooy yàlla yi foog nga muñ lënt yi subahaat yi foog nga muñ tooñ yi foog nga muñ sabotage yi foog nga muñ naqar yi foog nga muñ déviation yi yooyu yëpp foog nga muñ ko kon muñ moo la yóbbu àjjana julli yeeg jaamu yàlla yi lépp muñ la salaamun aleykum bi ma sabartum fa ni'ma uqba daar ah nekk na xéewal fa ni'ma ak doon xéewal uqba daar seen kër gu mujj gi ngeen ñëw xéewal la kuy wër kër gu am xéewale kër gu mujj gi muy àjjana benn dàqu ko ci kon malaayka lan la ñuy def da nga naan dañuy félicité dañuy félicité waa ajana mu ne waqad axbara annabi yonente bi alayhi salaam xibaar na ni ann al bayt al maamuur muy al baytul maamuur muy néeg bu nekk ci kaw asamaan si néeg boobu moo kaaba gi ñoo tolloo même alignement ñoo tolloo kaaba gi la nekk màkka ñoo tolloo même alignement dafa tiim kaaba gi fi sama nekk ci asamaan si yadxuluhu daf koy dugg wa fi riwaaya ci beneen riwaaya yusalli fihi daf fay julli néeg boobu kulla yawmin chaque jour sabuuna alf malak soixante dix mille malaaka soixante dix mille malaaka chaque jour summa la yaudun malaaka bu fa dugg julli fa doo dugaat la yauduna ilayhi axira ma alayhim ba keroog ku mujj ko di ñëw ba malaaka bu mujj di fa dugg ku xas ba dugg benn yoon nga fay dugg bi yàlla sàkkee aduna ba léegi néeg boobu mi ngi fa ñun waa aduna ñun doomu aadama yi ni ñuy wëree kaaba gi di ko tawaaf di wër kaaba gi malaayka yi ci kaw noonu la ñuy wëree baytul maamuur di ko tawaaf suñ tawaafee dañuy pare dugg ci biir julli fa te chaque jour soixante dix mille malaaka dinañ ko wër dugg fa julli malaaka bu dugg pare nga dootoo fa dugg benn yoon ñun ku aji maaka du mën ngaa dellu ku omra du mën ngaa dellu étudiants yi fa nekk di jàngi da ngay toog tey ci suba nga dem umra bu guddee nga dem umra boo xëyee suba dem umra chaque jour ngay umra aj maaka bu ñëw nga umra ñi fa dëkk waxi nopp mais bii benn yoon la ku xas ba dugg malaaka bu xas ba dugg dootoo dugg te chaque jour ñaata soixante dix mille soixante dix mille malaaka yonent bi alayhi salaam bi mu waxee xadis ba pare dafa jàng aaya bële ci suratul mudassir wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu kenn xamul armée yàlla bi nu mu toll ko dul moom imagine la soixante dix mille malaaka chaque jour dugg fa te ku dugg pare nga benn yoon nga fay dugg te chaque jour soixante dix mille dugg malaaka yi nu ñu toll yàlla rek ko xam kon malaayka yi doy nañ exemple ci wane grandeur yàlla malaayka yi kese doy nañ ci exemple soo bëggee xam ne yàlla ku màgg la malaayka yi doy nañ ci exemple wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulillah